salaamaaleykum patriotes yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare maa ngi nii toog ak grand Idi John Waar Facebook Facebook TikTok TikTok voilà. Facebook. <laughs> TikTok gis nga. muy noonu Lamine. Lamine la ñu Daaro. waaw waaw mi euh, général TikTok yi. waaw ngay général Facebook <laughs> maanaam opposition bees bi. ndeysaan. ay ñoom ay ay fu ñu jëlee ku leen nekkal TikTok. dina métti de dina métti ñoom danoo ñoom duñ ñëw ci liggéey bi wala. dama ne des fois est-ce que duñu yëkkati ci gars yi ñenn sax jox leen ñu jàppale leen quoi jàngal leen jàngal leen. Euh, ñu aal leen leen tuuti. Ah. ba ñu jàngal leen tuuti après ñu doog a ñëwaat. ah parce que gëm naa eh, yow yow moom d'accord ma ñu abale la <laughs> man nañ ma abal ñooñu quoi nañ ma abal. gërëm jàngal leen yow moom bu ñu leen abale wala jox leen ñoom moomoo. ah ñoom moomoo gars yooyu noonu quoi. muy noonu parce que affaire bi day bëgg a yéex quoi. non ñii ñii amul nañ noppalu nag man su ma leen doon conseillé. Lamine ah, ah. nañ dal. ah parce que ah. gis nga comme que dañoo jóge ci jël boo xamante ne jël bu métti la. Euh, sénégalais fàtteeguñu. li nga xamante ne def nañ ko fi. Euh, su ma sañoon dañuy def profil baax waaw ñu toog seetaan xool ñi nga xamante ne tey ñoom lañ fa andi. waaw fan lañ jëmee li nga xamante ne mooy réew mi. mais nag xam nga opposition opposition bii nii. Mm-hmm. débat d'idée lañ woote ñun. Ah. Mhm. maanaam ku amul idée. man mhm. ngaa toog. muy noonu nag ku amul xam-xam. man mhm. ngaa toog. sénégalais yi ñoo yeewu léegi. Ah, parce que léegi fi muy ci économie la ñuy waxtaan. kese ci pétrole bi. ci mbay mi. muy ci naka la ñuy def ba gaz bi euh, ñu jot ci. naka lañ def ba dundinu askan wi yomb. instant bi débat yooyu lañ woote. yeneen débat moom ku ko fi indi. diversion la moom mi ngi fi. mi ngi fi sax. 72 heures yi moom mi ngi fi. <laughs> grand baa ngi Facebook. man maa ngi TikTok man génn ma fenn man man man benn yitte man man TikTok dong laay toog. muy noonu nag man xooluma feneen. muy noonu waaw allah. Ah. incha allah ah, Facebook. TikTok lii nag ay milliards mayewu ko moom ay milliards ay milliards mayewu ko. barke alxuraanu karim buy loolu buy loolu projet bi rek dañ koy aar de. aar projet bi kese aar projet bi laa wax. barke alxuraanu waxee rek. waaw comme ni ko président Ousmane Sonko waxee. Euh, ñun ñëpp bañ jëlee réew mi dañ ne léegi ku nekk mu nga dellu fi nga nekkoon. waaw mais nekkoon dëgg la. mais foog ñu taxaw protéger li nga xamante ne mooy projet bi. parce que tey jii nii la euh, projet bi ko mm-hmm. que comme ni koy waxee ñoom président Ousmane Sonko ak Diomaye ak président mm-hmm. Diomaye. Mm-hmm. ñoom dañ nekk si luñ nekk. ñun ñu nga xamante ne lépp loo xamante ne war na ñëw dal seen kaw. mu njëkk ñun mu njëkk dal suñu kaw ba pare yaakaar naa bu jaaree ci ñun du jàll. voilà mu tey ji lañ gën a soxla doole patriote yi lañ gën a soxla euh, booloo Mm-hmm. ba nga xamante ne fii nga xamante ne fa lañ bëgg a jëmee réew mi ci projet bi. Mm-hmm. yàlla euh, eggal ko fa si si si jàmm. incha allah jërëjëf kontaan nañ trop